ni gaa yi doon def jaaykati xar ya di leb xar yi noo tudd mu ne tarsu naar bi bind yow nag mu ne mu ne mu ne ruux nga siiru naar bi bind ba koy jonn mu ne ane kotus waaw fii ko fi tudd kotus nekkati yow gaa yi dañ koo nax noonu noonu la iblis def dafa kotus dafa tarsu xoolal lim liggéey ci jinne yu njëkk ya mu jàll ci jinne ñaareel ya mu jàll damaa dama ñëw mu daanu moo tax yàlla it loo jëf jëf jëf li feer sa bakkan baa ngi dama ko ñëw wéegoo yaaxule moo tax boo bàkkoo rek du baax fa sajadoo illaa iblis iblis lu ko tee si joot aba bañ na wa takbara mu réeréelu wa kaana min al kaafirina mu bokk ca ñëwet yàlla ah léegi lànk naa si jot yàlla nag jàngal na Adama keroog tey nag aw jàng dong doyut mu bëgg koo yóbbu nag Canada mu def stage aljanna la ko bëgg a dugal waaye aljanna ji dugg fa ngir toog fa ak fay déedéet dafay dugg ndax xam-xam bi mu am ñu jàngal ko nuñ koy jëfandikoo bari na ci dong yi ku jàng ba noppi dem CST SP xaw ma na nag seen yooyu ñuy dem waaw benn nga def formation boo génne def stage lu ko mooy li nga jàng du sotti ne kon jàngalekat yi bari jàngkat yi léeg-léeg mu jàng ba noppi ñu bëgg école normale normal lii see njàng mi ba njàng mi normal ndoor koo teg ci biir jàngukaay yi mu door a jàngale loo ko mooy rek adduna tukki ndax léegi-léeg nga dégg jàngalekat boo xam ne bii ni mu déggee tubaab lay làkk olof yi xale yi xale yi ne xool di ko xool waaw ni nga déggee tubaab ngay làkk yi nun xale yi du sotti moo tax dañ lay jàngal nooy jàngalee yàlla day dugal aadama biir aljanna def loo ko benn stage ne ko am nga xam-xam mu ne waaw mu ne ko dama lay def loo benn stage ngir ñaar ndax nga xam jëfal ak bàyyi nga xamee leen ba su mën laa defal nga def su mën laa bàyyi nga bàyyi sëriñ bi fu woote waaye boo fi teree tux mbaan mees cam du bàyyi laaj ko sëriñ Abdoulaye buy toog buy ruuj la beral day fees del waaye ba mu ne bàyyi leen tox mbàkke dañuy taxaw ci diggante mbàkke ak Tuubaa di làmb poos yi gaa yi ñii tox ci ba tey ñu nga jàpp ak nit jëfe ndigal moo gën a yomb bàyyi tere fii itam saar bi jàngal na ko ndax aana bi ne ko lekkal lu la neex te du laal garab gii lekk na la ko neex ba noppi laal na garab ga waxuma la laal na waaye lekk na ko loolu tam na nga ko war a xàmmee sa kër toujours booy digal xale yeeg boo leen di tere yàlla nee na waxul naa wax nañu yaa adam ey yow adam uskun dëkkal anka yow wa zawjuka yaag sa soxna si aljannata àndal ak sa soxna dëkk aljannata aljanna moom laa wax léegi ci bi may tàmbali mooy xam-xam ni ko góor ñi fekkee lu ko jigéen ñi war a fekkee xam-xam ni ko jigéen ñi fekkee la ko góor ñi war a fekkee wala ni ko góor ñi fekkee la ko jigéen ñi war a fekkee stage bii tey xam nga bu ñu wax ba léegi kenn tudd fi awa tey nag dañ koy tudd te daa war a fekkee affaire yi jigéen ñi nag seen xam-xamu diine moom mooy falax rek naa si ak la ma jàngoon fàtte naa ko toog seen kër nag tey nelaw mënuñoo liir mënuñoo bind tey bind fekk fu ñu waxtaanee. yonent bi nii la leen defaloon sallallahu alayhi wa sallam lee sax amu fa woon mu ne fànn alhamdulilah yeneen jàkka yi ñoom duñ bàyyi xel sax ci nii ko ñii def mu def ab giriyaat nii ñoom xam nga ni ñu koy def ñiir pateet loolu bidaa la muy bidaa wala jàkka ji nekk fële jàkkay góor ñu nekk fii loolu tam bidaa la bu courant coupé jigéen ñi dootuñu bokk encore ber giñ ber jigéen ci xam-xam moo tax duñu wuti xam-xam waaw boo fi leen di waxtaan fi nekk ni jàkka ji fiisul nga nañ àndu si leen daal ni jigéen ñi dugg leen fii léegi te benn fekk na eh dem nañ fa fi mu nekk dagan na bu ñu amee benn sàppe ñaar dagan na troisième bi nekk jigéen dagan na bu dee ñeent juróomeel bi nekk jigéen looloo tax hadis ba naan sàppe yi gën ci sàppe yi mo mu bu góor ñi mooy ba féete kanam ndax mooy sori jigéen ñi sallallahu alayhi wa sallam kon jigéen ñi nañuy fekkee waxtaani diine yi ndax li góor ñi am ci waxtaani ñu ko ci am tey jàng seen diine wa ya adam wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka aljannata dëkk leen aljanna wa kulaa lekk leen yéen ñaar minha ci aljanna ragadan ci neexaay haythu shi'tuma fu mu leen neexe fu ngeen gis lu ngeen bëgg rek lekk leen fu ngeen mare rek naan leen garab yépp a dagan ci yéen ha wala taqraba bu leen jege nag haadihi sajarata garab gii garab gii téetété lépp dagan na ba mu des garab gii boo jëfandikoo sa xel jëfandikoo sa pas-pas doo ca lekk mukk boo jëfandikoo logique nag kenn mënu la koo tere parce que logique da lay wax pourquoi ñu tere la ko logique loolu lay wax pourquoi ñu tere la ko waaw logique baaxul wala boog logique yëpp baaxul wala taqraba hadi sajara bu leen jege garab gii fa takuna bu ngeen ko jegee da ngeen bokk min azzalimina ci tooñkat yi dégg nga de yàlla waxut bu leen ko lekk de bu leen ko jege la wax ndeysaan ñu nekk ca aljanna ja aadama nekk ak soxnaam nekk ci stage bu am solo yàlla bourse ko bourse bu am solo mu mën cee lekk mën cee naan mën cee sol am ci fu mu fanaan xanaa doy na tabarkàlla bourse mari la seytaane xëy benn bisi rek ñëw ne ko aadama ba jàmm nga yendoo ñu jàmm rek ci loo nekk mu ne stage ah ana sa waay yàlla koy wax di ana sa waay moo sew bu lay wax nga dëgg mbaa stage bi jeexee dig na la dara man de mu ne mu ne mu ne ko lii ma dal moom ma ko teg loolu defal naa ko lu ne defal naa ko waaye mu lii ma dama moo ko teg àndoon naa àndoon naa fekk jinne lam doon aaye bàyyi woon naa ko àndoon naa fekk jinne lam doon aaye bàyyi woon naa ko waaye gis nga ni ma def yow mbaa dig na la dara xelum aadama mi commencé jaxasoo mu ne ko ah waaw dig na ma dara de mu ne jërëjëf lu mu la wax mu ne neex na day bu stage bi jeexee dana ma embauché may liggéey mu ne ah loolu de tane na waaw dana la fay weera mu ne ah waaw waxtaan ngeen ci weer ba jubóo mu ne ah déedéet mu ne moom yow nan la nit di waxtaanee ak patron te du ngeen waxtaan weer wu dee lu mu lay fay daal ni firu ñibbi aadama nekk fa ne naan fii waa ji moom xel kii moom mën a jàng kii daal yàlla na fi ñëw suba rek suba jot rek mu séen ko muy wax mu ne ko eh ñëw nga iblis na ko waaw noo fanaane ak ñoom fi rek suñu waxtaan démb laa bëgg ñu àggale ko commencé na dugal lu ci baaxuñu mu ne ko waaw léegi yow soo liggéeyee nee nga dana la fay ndax mu ne fu mu lay fayee mu ne nee na su ma dee iblis daal ni ne ko dee daal di ñangal affaire dee mu ne ko waaw mu ne ko xam nga dee doomu aadama daal di seet guy ne ko déedéet mu mu koy ñangalal dee ba nga xam ne aadamaa ngi loxo mu ne ko nag est ce que laaj nga ko pourquoi mu tëral la garab gii mu ne ko noo agum faam moom kon nga ko laaj moom garab gi lay consommé moo tax du dee adama ne ko mu ne ko waat naa ko ci màggaayam laa wax garab gii lay lekk moo tax du dee yow xam nga ne lu ci nanguwul bu lekk ci garab gi rek parce que daa bañ ngeen bokk mu gaaw a jeex adama ne ah mais saa waay man fii la noor na dee félicitation tit tit tit la ilaha illallah adama ne ñëpp da di mat sàq nii awan ni daay doon mu ne ko kaay kuyin lekk ba suur naka ma xool rek gis yaram mu neenam mu kii xam na ne def na musiba waaye bi mu koy def yëpp yëgu ko woon nekk li bii nag ba chrétien yi nekk lee du bokk bu ko juif yi nekk lee du bokk bu ko salafiye nekk lee du bokk waaw bu ko bu ko ñoom ñoom seen xut bu nekk lee du bokk ñii dañ ne aadama dafa lank awa moo jël garab ga lekk moo tax chrétien du takk jabar ndax dañoo bañ jigéen ne ko lu ñu dal yaa ñu ko teg bu ñàkkee pexe ba koy takk seeni bu ñuul la ñuy sol ndax mer parce que bu ñuul kaw ndax mer léegi damaa bu ko yëgoon di nettalee dañuy wax ne awa daa lekk ba mu jàll aadamay lekk jibril téye fii kon kay lekkut ñu ne moo tax lii mais kon kay lekkut am di daa lekk ba jiix ñu ne ñoom yahud yi loolu moo waral jigéen di gis baaxu jigéen jooju wax yëngu maanaam moom it musu koo yenu waaw donc looloo waral nettali bi nga ciy dégg ay version yu bare bare Iblis nag bàyyeegut ba tey jii boo amee patron mi ñëw na la waaye patron bi dara yëpp yaa ko mën kii yaa ko dàq jàng diplôme bi nga am amu ko laa wax Iblis loolu la wax parce que ñu naan patron bon man dama yokkal ah wala ma gërëm ah te gërëm bu daax la su dee wut liggéey wallaay ndeysaan dama dama moo ndeysaan xëst naa ko noonu ci tënk bu gàtt yàlla mu ne kon fa azallahuma mu taraxis loo leen ak cheytaanu ca fexe ya anha ca aljanna ja fa axrajahuma mu génne leen ñoom ñaar mimma kaana fihi ca noos gañ nekkoon ah waxul naa yàlla mun nañu leen ihbitu wàcc leen ihbitu wàcc leen baadukum lenn ci yéen aduwun noon la li baadin ci lenn wàcc leen ndax ay noon ngeen ñu wàcc aadama noonoo iblis iblis noonoo ko moo tax fu doomu aadama gis jaan rek yéen wa dal waaw walakum am ngeen nag am ngeen yow aadama yow xawa ak seeni doom fil ardi suuf si mustaqarrun saxukaay wa mataaun akub yóbbal ila xiin ba jamono moo tax ñi daganal planning familial bu ñu jàngoon aaya ji xam ne dëralut maanaam yàlla nee na walakum am ngeen fil ardi suuf mustaqarrun dëkkuwaay wa mataaun ak lu ngeen di lekk kanaan ak di ko sol ilaa xiin ba baa ngeen di dee ku fi judd maa la ko defal baa nga fi jóge kon li fi yàlla indi doy na sëkk mustaqarrum wa mataaw ñaar yi du man ci mukk yow mi gën a néew alal wala sax man man mi gën a néew alal su ma demee ba décembre bii faat bu ma calculer li ma fi dépensé damay wax waaw lii fu mu jógee daañu ne benn compte am neem deux cent risala soxla ni rabbi israeli sadri deux cent mutalan islam rabbi israeli sadri deux cent semaine bi daal moom lu gàtt gàtt six cent ba njëkkee rek jox na ma cinquante cinq mille ne ma lii mooy konnaane bi laa dajalee gum ak ak jàllaa bi bii mën a ko jërëjëf jeex na yàlla dénkaaniwul kenn ñëpp la yoral boppam waaw dénkaaniwul kenn ñëpp la yoral boppam kon walakum am ngeen yéen it fil ardi suuf si mustaqarrun soxuwaay wa mataaun ila hiinin rek adama daa rëccu naa de yàlla ne ko waaw da ngaa bëgg ma baal la mu ne mu ne ko baalu ma noo may baaloo mu ne ko nii laa ilaha illa anta subhanaka nga may wax inni kuntu min azalimina loolu la moo tax yàlla ne fatalaqa aadamu aadama jot min rabbihi jóge ca boromam kalimatin ay baat yàlla miy baale moo ko jox baat yi muy baaloo kon kay da ko nar baat moo tax yàlla baax moom mii baale moo ko jox baat yi nga xam ne su ko waxee la koy baal xam nga su la waa ji ne woon ñaan ma ñaan ma magnétophone nar da nga koo nar a am parce que moom la yor yàlla ne ko da ngay wax laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimina ah aadama ne ko du ma ko yàggal soxna si mun a am na ko kaay waxal ñu daal di wax laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimina fa taaba alayhi yàlla baal ko fa ca saasakat taaba alayhi yàlla baal ko innahu naqte yàlla huwa tawaabu mooy baalekat bi arrahim mooy ki yërëm ñëpp baal laaxira ña ko yeyoo yàlla nañu baal te yërëm bi na ko baal naa la waaye nag foog nga ñibbi foog nga wàcc dem nag stage bi dafa jeex tooñaa la nga ma ci baal naa la tooñ gi waaye moo lay xamal ne stage bi jeex na léegi nag ilal ardi nga jëm ca suuf ca suuf nga jëm xul naa ñu ne ko ihbitu wàcc leen ca suuf min ha jóge ci aljanna ji jami an yéen ñëpp accu wàcc leen ndeysaan ñu daan di waaj fii itam yonent bi neen aay jëramtalu la fa imma yatiyannakum aay jëramtalu ndax yàlla xam na ne seytaan yi ñu ko génne fii jiitu na ko adduna bu yàgg ba nekk ca lamba ji naan sa gunuk ku nukk di ko xaar waaw yàlla xam na loolu adama ci misaal commencé tëkk ay bagaasam walis wu ngënd ak beneen walis fële ak ñaari saak bëgg gàddu yëpp ba pare soxna si moom yor saagam su ndaw su soxna yi yor li lay jàngal ne jigéen boo ko yërëmul du ngeen dem soxna si nekk fële naan adama jënd ma ne ko maa ngi ñëw yow lakk la nga lool noonu la jigéen ñi def seen jëkkër yi léegi waaw ndeysaan yàlla nag affaire bi yërëmtu jàppaat ko parce que kii xoolal li mu nar a gàddu bagage si ndaw si yëpp moo ko nar a gàddu moo nar a arrêté taxi moo nar a fay taxi te du ci dégg merci plus lu métti li ko dal léegi plus ka koy xaar ja làmb ja oh métti na de ah walaay métti na yàlla ne ko fa imma yaatiyannakum naa la yónnee waat naa la yónnee waat hudan beneen sens naa la yónnee waat beneen sens tey waa ji gañal na ci lamb ji mu ne am na ko naa la yónnee beneen sens fa man tabiya hudaaya ku topp sens boobee falaa xawfun alayhim duñu tiit wala hum yaxsanun duñu ragal dara dama lay yónnee waat sa doom yi laay yónnee ay yónent yónnee leen ay téere ndax ñu mën a bëree waaj parce que waaj baaxul de aadama ne ko wax nga dëgg de kon nag maa ngi dem mun na ko debal ndeysaan Adama daal di jël taxi ndeysaan mook Awa daal di ñëw daal di installé Arafat commencé tasaaroo am ay doom di am ay doom ba doom yi bari mu commencé di leen takkale ay sëy coow daal di am benn doom ba daal di gàddaay dem fële siin nekk tey moo jur si waaye ñu xonq ni wallaay ndeysaan yëf yi tasaaroo ba ñun ñu juddoo ci doomu noox waaw daal di ñuul nii tabarkàlla nekk fii nga xam ne mooy fi jant bi lakkee gaa yi mu lakk ñu ba ñuul kukk waaw buñ demee Europe commencé xeer ba borom ay karim affaire bi tasaar na bañ ñun ñu ñëw tey waaye kista bi nett li bi ba bisu tey bi du xewi lépp luñ ci nett rek ñu ngi ci walladina kafaru ñëwee ci saas boobee nag bañ koo topp wa kasabu bi ayatina weesu suñu alquran ji ulaayika ñooñu ashaabu naar ñoo nar a nekk waa sawara ndax ku tuppul ci téere bi rek seetaan daan la genn gàllaaj a fi am genn gàllaaj dong nga fi am mooy téere bi rek boo ko toppee daal daal seytaane boo ko bàyyi seetaan daan la parce que moom gàllaaju na ba noppi ndax mag la te ko la mag ëpp lay sagal ulaayika asxaabu naar hum ñoom xaaliduna way sax lañu fiiha ca sawara wa yal nañ ca la musal waaw yonent bi daana jàng fu mu toll sawara rek ne yal na mu ca la musal fu mu fekk aljan rek ne yal naa ca dugg moo tax ñaar rakkaamee yàgg lool ca saaba ba ku sayf ñaar rakka yo yàgg ba mu ne asalaamaaleykum rek asalaatu xayru mina nawm ñaar rakk yàlla nag ñëw tàmbali fas yéene xas banoo Israël fas yéene sikkal tubaab yi wax leen seeni sikk waaye nag lépp di firi suratul fatiha ba suratu naati léegi yaa ngi ci firi fatiha waxoon nga léegi ihdina siratal mustaqim siratal lazina anamta alayhim loo ca tegoon xayril maxdubi alayhim wala dalin ñaar ñu la yàlla tekki yaa ne yàlla damaa bëgg a jaar ci yoonu ñu jub ña waaye yàlla boo ma jaar la ci yoonu ña ñu mere ak yoonu ñu sànq yàlla la wax nga dëgg de loolu di jaar naa ñaan moom kaay sax ma netti la la gaa yi sànku ak ñu mere ba nga xam leen nga ne ko aj mu ne yaa bani israil yaa bani israil ee yéen doomi israil israil mooy yaaqub israil mooy yaaqub israil mooy abdullah jaamu yàlla yonent bu ñu wax yaqub mooy seen baay ñoom ñépp fukk la ñu ak benn ak yusuf muy fukk ak ñaar ci kanam léegi da nga dégg fukki bëti ndox yaak ñaar ba mu balee famille bu nekk am foo naan yaqub mooy seen baay moo tax saa bu digga xam ne yaa bani israil mooy yaa bani yaqub ee yéen doomi yaqub yi caay caay gaa nga tàmbalee ca ba ñuy pexeel yusuf di di wéy ba bisu tey képp kuy saay-saay ak ñu ko jële gën a saay-saay ba bisu tey ñoom na yàlla bëgg a nettali seen seenu mbon seenu jubadi seenu caay-caay ba baa ñuy am cent quarante huit aaya moo tax dañu mujj sax banu Israël bu doon sàppi sàppi la waaw benn oustaz yi fii ndeysaan yàgg ñi ñi kii daane waaw oustaz mu xanaa banu Israël la xam moom banu Israël banu Israël oh merde banu Israël fekk na dafa demul introduction bi wan leen ne yàllaay xuloo yàllaay xuloo daf laa bëgg a wan banu Israël ba doo dugg l'islam yaa banu Israël ñu ne ñu uskuru fàttaliku leen ni'mati sama xéewal allati sama xéewal yi nga xam ne an'amtu alaykum xéewale naa leen ko yéen banu Israël ndax def naa leen ngeen nekk ay doomu yonent wa awfu bi ahdi mot leen sama kóllëre awfi bi ahdikum ma matal seen kóllëre wa iyaaya farhabuun ragaleen ma man dong banu Israël wa aminu waay waay gëm leen bi ma anzaltu ci lii nga xam ne wàccee naa ko musaddiqan muy dëggal li ma maakum li ngeen yor gëm leen alxuraan ndax bi mu ñëwee wéttiwul li ngeen yor wala takunu bu leen bokk bu leen nekk awala kaafirin bi ñi ko njëkk a weddi kenn weddee ko ko waaye waaye bu leen ko njëkk a weddi wala tastaroo bu leen jënde bi aayaati sama alxuraan bii samanan qalila njëggu néew wa iyaaya fattaqoon ragal leen ma banu israel lànk wala talbisul xaq bu leen jaxase dëgg bil baatili ci caaxaan bu leen fekk dëgg ngeen jaxase ci caaxaan wa taktumul xaq nëbb dëgg ga feeñal caaxaan wa antum taalamuuna te yéen a ko tey waaw banu israel nëbb dëgg feeñal caaxaan nëbb alquran nëbb muhammad alayhi salatu wasalaam feeñal caaxaan mooy injil boo xam ne benn waaye ko bind wa aqimu salaat taxawal leen julli wa atu zakat te ngeen joxe azaka warkaaw te ngeen di rukoo di ma jaamu ma arrakiina ànd ak ñi rukoo di ma jaamu banu israel bañ banu israel bañ banu israel atamuruna naasa ndax da ngeen di digal nit ñi bil birri ci mbaax wa tansawna anfusakum fàtte seen bopp wa antum tatluuna alkitaaba tey jàng alquran léegi afala taaxiluun xanaa mu leen xel banu israel lànk waaw bu ñëwee kay naan seen gaa yi gëm leen Muhammad mi li muy woote baax na nag yàlla na yéen a ci dugg yéen comme li muy woote baax na kay yéen a ci war na jiitu ñu leen tuddee ulama su borom xam-xam yi baaxut yi digal nit ñi lii def lee ulama su mooy borom xam-xam yi nga xam ne dañuy fekk lu xaram ñu daganal ko fekk lu xaram ñu daganal ko wala digal nit ñi mel ni mbir mi leen baaxut ne ca pii mi daa xaram ba na pii pii gisaane daa xaram ba na pii gisaane yonent bi nee na yomal xiyaam dañuy jàpp benn borom xam-xam ne ko biir sawara dëll bu di génn waa sawara ñëw ne ko eh grand yow yaa nekkoon koñ ba di waaraate mooy leen sii sii ñu ne ko ah dina yaa ko doon digle lu baax di tere lu bon mu ne sii ñu ne ko lu la indi fii mu ne lu baax la ma doon digle daawu mu ko def lu bon la ma doon tere ca laa nekkoon waaw booy daal di koy xool booy kon bi moo tax looy digle day gaaw a nekk looy tere nga bàyyi ko ban Israël daaw ñu ko def ban Israël wastaayinu tee ngeen a dimbali ko bi sabri ci muñ wa salaati ak julli wa innaha te ngeen xam ne nag julli la kabiratun lu jafe la illa ala alxaashiina lu dul ñu ragal yàlla julli ñaar ñeenti rakk am na ñoo xam ne quatre-vingt-dix minutes cent vingt minutes moo leen gën a yomb ñu daw ko ci football julli ci jàkka ji ñaar rakk ah wallaay ndeysaan am na ñoo xam ne fanaanee baal moo leen gën a yomb julli timis waaw fanaanee baal di fecc rek xale bu góor fecc ba doole beneen jël te dégg naa xale jigéen bi demee ci baal ba moom kenn du ñemee sañ a fecc waaw yow ku baax nga waajal suñ bile góor day bëri jabar wax nga dëgg de mu ne way naxaati julli nag la kabiratun problème bu rëy la illa ala alxaashiina lu dul ci ñu ragal yàlla ñu ragal yàlla ñoom julli dafa yomb ci ñoom te it dañ koy bëgg bu ñu noddee rek ñu ak waaye am na ñoo xam ne ñaari rakka ay balañ koo def dañu sonn lool tabarkal ñan ñu ñan la julli yomb àll si ñi nga xam ne